Ibrahima bokk na ci ñoom bi ko yàllay dikk mënul woon a giñ ci keneen ku ko gën a màgg ba tax mu giñ ci boppam ne ko sa laaw dinaa la barkeel yokk sa askan noonu Ibrahima di xaar tey muñ ba jot li ko yàlla digoon nit kuy giñ nag daf koy wékk ci ku ko sut ngiñ lu mel noonu mooy wóoral mbir te mooy jeexal lépp lu ñuy werante ñi war a jot li mu dige